gàtt yooyu nag nga xam ne yónnee nañ ma ko da cee am lu ma ci jël li ma leen wax mu méngoog sama soxla te dinaa ci joxe benn misaal rek ndax lu sori la ci man lu tooyal sama xol la mooy gàtt gii nekk sama gannaaw kii mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafete gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacké yal na ko yàlla yokk wér-gu-yaram nañ ko yàlla bàyyi lu yàgg yal na ku yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gi keroog bi ma sëñ Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam ne la koo jagleel waaye gàttuk barkelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ne ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi man ma ñëw jëlsi ko ma yónnee oto mu jëlsi ko mu na ma déedéet moo koy dawal moo koy dog dugal ci oto andi ko ba sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt bi nga xam ne moom lañu ñu fas yéene barkeloo rek ni ko sëñ bi waxee nii mu ko defee du gulleet wax naa ko ndax defaat na ko keroog bañ may agressé ci corniche ba ba tax ma mujj nekk ci hôpital tëdd fa ay fan doon faju dafa yónni sëñ abu jox ko enveloppe boo xam ne un million moo ci nekkoon ne ko nee ko enveloppe bi ñaan la ne ko téye am naa li may wax nii sax bëggu ko ndax bëggul ñuy wax ci jëfam muy woon it lu tooy sama xel sama xol ker bi may génn ci hôpital ba ci enveloppe boobu laa sàkkee bi ñu ma defaree sama facture muy sept cent et quelques mille ma fayee ko ko kon maa ngi koy yokk ñaan di ñaan sénégalais ñu ñaanal ko ba lépp loo xam ne ay naalam lañ ak ay mbébét yàlla na ko yàlla yombalam ànd ak nag saa su ñu gisee maag moom su ma demee seeti ko bu ñu waxtaanee bu may dem dugal sama loxo ci su may dugal sama loxo ci poche mu ne ma sa loxo boobu de bu mu génn ndax yow man maa war a sàkk di la jox di la jàppale waaye yow waroo yëkkati di ma jox kon jërëjëf Mbàkke suñu xol sedd na